yaakaar sa ndimbal. yaakaar sa ndimbal yow yàlla. yaakaar sa yërmande. yaakaar sa yërmande. yaakaar sa tawfiq. yaakaar sa jëm ci jëf joo xam ne. jëm ci jëf joo xam ne. danañ ci amee sa ngërmande. danañ ci amee sa ngërmande. danañ ci amee itam sàmm suñu bopp ci suñu biir. danañ ci amee itam sàmm suñu bopp ci suñu biir. senegal mi romb ci ay. fatara yoo xam ne yu métti la. Sénégal ñu ngi romb ci ay fatara yoo xam ne yu métti la. ci yàlla la bàyyee ko. ci yàlla la bàyyee ko. moo ñu ko wax ci alquran. ndax moo ñu ko wax ci alquran. dinaa leen nattoo. dinaa leen nattoo. xiif. xiif. dinaa leen nattoo. dinaa leen nattoo. dee. dee. dinaa leen nattoo. dinaa leen nattoo. wërsëg bu manqué. wërsëg bu manqué. waaye bégalal ñi nga xam ne. waaye bégalal ñi nga xam ne. leen loolu daree. bu leen loolu dalee. ñu muñ. ñu muñ. ndax bu ngeen muñee. ndax bu ngeen muñee. yàlla wax na ne. yàlla wax na ne. waxal ne yàlla rek am kattan. waxal na yàlla rek am kattan. yàlla rek am doole. yàlla rek am doole. ñu ngi jooyal suñ mbir yëpp jëmee ko ci moom. ñu ngi jooyal suñ mbir yëpp jëmee ko ci moom. xew-xew yi métti na ci ci Sénégal yëpp. xew-xew yi métti na ci Sénégal yëpp. ñii. ñi ci gaañu. ñi ci gaañu. ñu ngi jaale seeni mbokk. ñu ngi jaale seeni mbokk. ñi ci dee. ñi ci dee. ñu ngi jaale seeni mbokk. ñu ngi jaale seeni mbokk. ak seeni waajur. ak seeni waajur. ak Sénégal yëpp itam. ak Sénégal yëpp itam. ñi ci gaañu itam. ñi ci gaañu itam. yal na leen yàlla delloo ci seen sago. yal na leen yàlla delloo ci seen sago. may leen wér. may leen wér. te. ñu yàlla may ñun ñëpp itam. te yal na ñu yàlla may ñun ñëpp itam. ñu dellu ci suñuy xel. ñu dellu ci suñuy xel. dellu ci dëgg. dellu ci dëgg. xam. xam bu baax ne. bu baax ne. réew mi yëpp. réew mi yëpp. am na président. am na président. waaye terewul. waaye terewul. kenn ku nekk ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. yàllaa ngi laxas kóllëre ci sa baat bi. yàlla ngi laxas kóllëre ci sa baat bi. te mooy Sénégal. te mooy Sénégal. kóllëre yàlla nag. kóllëre yàlla nag. sàmm ko rek la yàlla sàmm ko rek la yàlla bëgg. sàmm ko nam gën a rafetee. sàmm ko ca nam gën a rafetee. sàmm ko ca nam gën a baaxee. sàmm ko ca nam gën a baaxee. sàmm ko ca nam gën a dundalee. sàmm ko ca nam gën a dundalee. ñun ñii toog ci jumaa ji. ñun ñii toog ci jumaa ji. ak ñi nekk ci seen i pale. ak ñi nekk ci seen i pale. ñun ñëpp a yem ci kanam yàlla. ñun ñëpp a yem ci kanam yàlla. yàlla sant nañu. yàlla sant nañu. ñu def leen. ne def leen. waaye bu ngeen def itam. waaye bu ngeen defee itam. na ngeen def jëf joo xam ne jëf ju jëf ju jëf ju yiw la. def jëf joo xam ne jëf ju yiw joo xam ne. jëf joo xam ne. dana leen bàyyi dana leen bàyyi. dana leen bàyyi. du ngeen tiit lu ko jarut. du ngeen tiit ci lu ko jarut. du ngeen jaaxle ci lu ko jarut. du ngeen jaaxle ci ko jarut. ndax boo xamee. ndax boo xamee. yàlla mooy def di dindi. ne yàlla mooy def di dindi. yàlla. yàlla indi na nattu. yàlla indi na nattu. ñun ñëpp yëg nañ ko. ñun ñëpp yëg nañ ko. gën naa métti wante naam. gën naa métti waaye naam. gën naa métti wante. gën naa métti hante waaye naam. waaye ñun ñëpp a ko bokk. waaye ñun ñëpp a ko bokk. xale yi de ay doomi Sénégal rek lañ. xale yi de ay doomi Sénégal rek lañ. doomi baay bu nekk lañ. doomi baay bu nekk lañ. doomi yaay ju nekk lañ. doomi yaay ju nekk lañ. kon nag. kon nag. Sénégal moo ñàkk ay doomam. Sénégal moo ñàkk ay doomam. Sénégal moom la ay doomam gaañu. Sénégal moom la ay doomam gaañu. ñu ko waral. lu ko waral. xëy na ñi koy def xam nañ ko. xëy na ñu koy def xam nañu ko. waaye gannaaw ñoom xam nañ ko. waaye gannaaw ñoom xam nañ ko. nañ yërëm population bi nga xam ne xamuñ. ñu jaar ak ñoom ci yoon woo xam ne. ñu jaar ak ñoom ci yoon wi nga xam ne. moo leen di jox yaakaar ci seen bopp. moo leen di jox yaakaar ci seen bopp. moo leen di jox. Euh, nangu. moo leen di jox nangu. sóobu ci liggéey. soobu ci liggéey. sàmm sa réew. sàmm seen réew. sàmm sa réew du mooy sàmm suuf si rek. sàmm sa réew du mooy sàmm suuf si rek. waaye sàmm sa moromi nit. loo bëggut sa bopp doo. sa bopp doo ko ko bëggal. loo bëgg ci sa bopp nga bëggal ko ko. loo bëgg ci sa bopp nga bëggal ko ko. loolu moom la ñu yonent sant. loolu moom la ñuy yonent bi sant sallallahu alayhi wa moom la ñu alquran wax. moom la ñu alquran wax. yéen jullit ñëpp. ne yéen jullit ñëpp. ay mbokk ngeen. ay mbokk ngeen. rafetal leen jëm ci seen biir. rafetal leen jëm ci seen biir. wax leen ci seen waxante leen ci seen biir wax yu rafet. waxante leen ci seen biir ay wax yu rafet. wax leen itam wax yoo xam ne. waxante leen tamit wax yoo xam ne. wax yu jub la. wax yu jub la. ndax bu ngeen ko defee. ndax su ngeen ko defee. yàlla mu ne. yàlla mu ne. dinaa leen nangul. dinaa leen nangul. dinaa leen fay. dinaa leen fay. dinaa leen dugal aljana. dinaa leen dugal aljana. dinaa leen jéggal seen i bàkkaar. dinaa leen jéggalit seen i bàkkaar. ci wax ju rafet rek ci ci kaw wax rek ak jëf. ci kaw wax rek ak jëf jigéen xëy na wante seen bopp. moom la ñu yàlla sant. loolu moom la ñu yàlla sant. ñun ñëpp war nañ koo jéem a taxawee. ñun ñëpp war nañ koo jéem a taxawee. ñu ngi wax naan sëriñ si waxuñ. ñu ngi wax naan sëriñ si waxuñ. ñu ngi wax ba bëgg a dee. sëriñ saa ngi wax ba bëgg a dee. waaye yéen waaye ñun dañuy waxat rek. ñuy wax yéen lañ rek. ndax nangu ngeen ndax dégg ngeen. ndax nangu ngeen. ndax dégg ngeen. foofu la foofu la wax bi nekk. foofu la wax ji nekk nag. bu ngeen nangoo. bu ngeen nangoo. xam ne. xam ne. ñuy woote yëpp. li ñuy woote yëpp. mooy nañ nekk ci jàmm ñun ñëpp. mooy nañ nekk ci jàmm ñun ñëpp. nañ yéene wante jàmm ñun ñëpp. nañ yéene wante jàmm ñun ñëpp. li ñuy sàkku. li ñuy sàkku. nañ ko sàkku ci rafetal. nañ ko sàkku ci xanami rafetal. te yàlla. te yàlla. ci dereti jàmbur yi dereti julli yi dereti nit ñi ñuy tuur ci dereti nit ñi ñuy tuur deret lu gën a li gën a cher la deret li gën a cher la ndax àllaaxira moom la ñuy njëkk a seet ndax àllaaxira moom la ñuy njëkk a seet bon nag deret jooju ngay tuur bon deret jooju ngay tuur wala ngay sabab ci tuuróom wala ngay sabab ci tuuróom war nga koo xelaataat bala nga cee dugg war nga koo xelaataat bala nga cee dugg ndax yaa ngi seq ak buur boo xam ne ndax bind na jaamam. bind na jaamam. andi ko ci àddina. andi ko ci àddina. dunda jox ko muy dund. jox ko muy dund. nekk ak moom. nekk ak moom. yow nga ne dund bii yàlla def dama koy dindi. yow moomu nga ne dund bii yàlla def dama koy dindi. ngir lan. ngir lan. ngir sàkk loo xam ne. ngir sàkk loo xam ne. yow yaa ko xam. yow yaa ko xam. waaye Sénégal. waaye Sénégal. lu ci gën a bëri xamuñu ko. lu ci gën a bëri xamuñu ko. ragal leen yàlla ci dereti nit ñi ragal leen yàlla ci dereti nit ñi ragal leen yàlla ci doomi jàmbur yi ragal leen yàlla ci doomi jàmbur seen bopp ragal leen yàlla ci seen bopp sàmmantele sàmm gannaaw yéen la yàlla teg ci seen loxo doole gannaaw yéen la yàlla teg ci seen loxo doole muy gouvernement muy opposition muy gouvernement muy opposition ndax ñaar ñooñu rek la nit ñi di déglu ndax ñaar ñooñu rek la nit ñi di déglu bon nag gannaaw foofu la leen yàlla teg kon gannaaw yéen foofu la leen yàlla teg gërëm yàlla. na ngeen gërëm yàlla. ci jaamam yi. ci jaamam yi. mooy ngeen sàmm leen. mooy ngeen sàmm leen. mooy ngeen dimbale leen. mooy ngeen dimbale leen. mooy ngeen teg leen ci yoon woo xam ne. mooy ngeen teg leen ci yoon woo xam ne. bés bu bés bu delloo bés bu delloo jotee. bés bu delloo jotee. buñ leen delloo mu rafet. bu ngeen delloohee mu rafet. buñ leen delloohee mu rafet. buñ leen delloohee mu rafet. ndax li ngeen di jàngale rek. ndax li ngeen di jàngale rek. moom la xale yi mokkal. moom la xale yi di mokkal. ëllëgee. bu ëllëgee. ñu jàngal ko seeni morom. ñu jàngal ko seeni morom. bu ko defee ñu jëflanteeg yéen rek. bu ko defee ñu jëflanteeg yéen rek. comme comme comme ni ngeen ko bëggee comme ni ngeen ko bëggee rek. te du yoon woowu. te du yoon woowu. lañ mën a tabaxee. lañ mën a tabaxee. société bu dëgër. société bu dëgër. du ci yoon woowu. du ci yoon woowu. la ñuy tabaxee. la ñuy tabaxee. société boo xam ne. société boo xam ne. seen i borom yëgante nañ. seen i borom yëgante nañ. seen i borom dimbalante nañ. seen i borom dimbalante nañ. moo gën tabax société boo xam ne. moo gën tabax société boo xam ne. ay noon rek lay bijji. ay noon rek lay bijji. ay noon lay indi. ay noon lay indi. tabax luy indi noonoo. tabax luy indi noonoo nag. loolu jàtt xóotal. loolu jàtt xóotal. booy tabax. booy tabax. tabaxal loo xam ne dafay indi. tabaxal loo xam ne dafay indi. déggoo. déggoo. tabaxal loo indi. tabaxal loo xam ne dafay indi. xol yi tàppoo comme ni ko Cheikh Abdoul Aziz Dabakh daan waxee. xol yi tàppoo comme ni ko Cheikh Abdoul Aziz Dabakh daan waxee. ñemeloo xale yi. ñemeloo xale yi. liggéey. liggéey. <coughs> ndax bu liggéey rek am. ndax ku liggéey rek am. ndax yàlla ko wax. ndax yàllaa ko wax. liggéeyal léegi gis léegi li nga liggéey. léegi gis léegi li nga liggéey. waaye boo liggéeyul. waaye boo liggéey dara. bëgg am bëgg am. mooy indi mooy indi jafe-jafe yi rek. mooy indi jafe-jafe yii rek. yal nañu yàlla yaral suñuy doom. yal nañu yàlla yaral suñuy doom yara bi. yal nañu yàlla yaral suñuy sët. nañu yàlla yaral suñuy sët yaara bi. yal nañu yàlla taxawu. yàlla taxawu yaara bi. ñu yàlla ubbil buntu boo xam ne. yàlla ñu yàlla ubbil buntu boo xam ne. danañ ci xamee ku bëgg a tabax nooy tabaxee. danañ ci xamee ku bëgg a tabax. nooy tabaxee. ku bëgg a yëkkati nooy yëkkatee. danañ ci xamee ku bëgg yëkkatee. nga bind ko ci li yàlla nga nga nga tabax ko ci li yàlla wax. nga tabax ko ci li yàlla wax. na wax leen nit ñi wax yu rafet. na wax leen nit ñi wax yu rafet. ne wax leen wax boo xam ne wax bu jub la. ne wax leen nit ñi wax joo xam ne wax ju jub la. bu ngeen ko defee. bu ngeen ko defee. yàlla mu ne dinaa leen baal seen i bàkkaar. yàlla mu ne bu boobaa dinaa leen baal seen i bàkkaar. te dinaa leen dugal aljana. te dinaa leen dugal aljana. yal nañu ko yàlla defal. yal nañu ko yàlla defal yaa rabbi. ñu ngi wax. sëriñ bi na di ngi wax. ñuy ragal yàlla ci deret ci nit ñi. ñuy ragal yàlla ci deret ci nit yàlla ci xale yi. na ñuy ragal yàlla ci dérete xale yi nañu ragal yàlla ci suñu bopp nañu ragal yàlla ci suñu bopp bañ koo jébbalee say namm namm rek bañ koo jébbalee say namm namm rek ndax say namm namm yow kenn ndax say namm yow kenn du mooy namm population bi yëpp du mooy namm namm population bi yëpp te te kenn mënta am dara kenn mën mënta am dara te neexut yàlla. te neexut yàlla. yàlla mooy maye. yàlla mooy maye. yàlla mooy xañe. yàlla mooy xañe. waaye ne nañu ñu sàkku leen. waaye ne na ñu sàkku leen. yonent mu ne ñu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu. bu ngeen di ngeen di sàkku. rafetal leen sàkku. rafetal leen anami sàkku càkkute gi ngeen di sàkku. waaye boo ñaawalee. waaye boo ñaawalee. sa bopp rek nga koy sa bopp rek ngay ñaawal jëme si. sa bopp rek ngay ñaawal. jëmee ci. ndax lu nekk rek daf fiy des. ndax lu nekk rek daf fiy des xam ngeen. taarix di nettali. taarix di ko nettali ëllëg. ku nekk nag boobaa di nga jot sa sa wàll. ku nekk nag su boobaa da nga jot sa wàll ci sa jëf. yal nañu yàlla taxawu. yal nañu yàlla taxawu yaara bi. amiin yal na yàlla taxawu Sénégal. yal na yàlla taxawu Sénégal yaara bi. fitna yi ñuy dund. fitna yi ñuy dund. neex na yàlla mu ubbeeku ci suñu kaw. neex na yàlla mu ubbeeku ci suñu kaw. waaye ñu ngi wax yàlla ne ko. waaye ñu ngi wax yàlla ne ko. yow yàlla jéggal ñu. yow yàlla jéggal ñu. rabbana kshif anna al-azaaba inna mu'minuun yow yàlla yàlla nga uññil mbugal mi ñu teg. yow yàlla yàlla na nga ñu uññil mbugal mi ñu teg. ndax yow rek lañ gëm. ndax yow rek lañu ñu gëm. yow rek yaa mën soppandiku soppandeku. yow rek yaa mën a soppandeku. ci xol yi. ci xol yi. soppi ko. soppi jëmale ko foo xam ne. jëmale ko foo xam ne. yërmande say nekk. de fay nekk. yëg sa morom. yëg sa morom. moo fay nekk. moo fay nekk. bëgg say doom. bëgg say doom. ak say sët. ak say sët. ak futur bi ñëw. ak futur bi ñëw ëllëg. bëgg leen préparer leen. bëgg leen préparer leen seen avenir. boo xam ne bu ñëwee. dañ am fuñ tabax seen bopp. danañ am fuñ tabax seen bopp. waaye xuloo. waaye xuloo. xas. xaste. saaga. saaga. boo ko doon loo futur bi di ñëw. boo ko doon loo xee. futur génération bii di ñëw. kon loo leen di defal. kon loo leen di defal bu boobaa. xeex continuer rek. xeex continuer rek. xas continuer rek. xas continuer rek. lu baax lu nekk nga ne baaxut. lu baax lu nekk nga ne baaxut. loolu yonent waxoon nañu ko. loolu yonent bi waxoon nañu ko sallallahu alayhi wa sallam. ngi ñëw. jamono ngi ñëw. jamono ju metti joo xam ne. joo xam ne. nit. nit. dana def lu baax. dina def lu baax. ñu linkaar ko ne ko li ngay def. ñu linkaar ko ne ko li ngay def. li ngay def baaxut. li ngay def baaxut. jamono ngi ñëw. jamono ngi ñëw. nit dina dem ba nga xam ne. nit dina dem ba nga xam ne. xàmmeeti lu baax la xàmmeeti lu bon la. du xàmmeeti lu baax te du xàmmeeti lu bonit dafay def rek. dafay def rek. ñii ñooñu bés bu ñëwee jamono boobu bés bu ñëwee. na jamono jooja nag bés bu ñëwee. saxaaba yi na ko yónent loolu dina am. saxaaba yi na ko yónent ndax loolu dana am. am. mu ne leen axa kay dana am. dana am ci xeet wi. waaye bu boobaa. waaye su boobaa. dawal. dawal dawal fitna. dawal fitna. bu ci bokk. bu ci bokk. bu ci wax. bu ci wax. lu koy taal. lu koy taal. xanaa wax lu koy fay. xanaa wax lu koy fay. waaye léegi nag jamono bii. waaye léegi nag jamono bii. ma defe ne ay malaaka rek ñoo mun a wàcc wax ñu ñuy dégg waaye nit sëriñ bi na dafa foog ay malaaka rek. ñoo mën a wàcc xanaa wax nit ñi lu ñuy dégg. waaye nit mënatu la wax nit lu muy dégg. ci ci ci nit ñi fi ñu toll nii. ci fi ñu nii. waaye nag. waaye nag. lu mu jafe-jafe lu métti métti. lu mu jafe-jafe lu mu metti métti. bu mu tax a naagu. bu mu ñu tax a naagu mukk. bu mu tax a dellu gannaaw. bu mu ñu tax a dellu gannaaw it. bu mu ñu tax a tiit. ndax nit lu ko yàlla dogalal rek dina ci àgg. ndax yàlla dogalal ci dundam rek dana ci àgg. ñëppay dee. ñëppay dee. ku nekk nag ak na la yàlla bindalee nga dee ko. ku nekk nag ak na la yàlla bindalee ne noonu ngay dee. Seydina Omar daan na wax ne. Seydina Omar daan na wax ne. yow yàlla yàlla nag ma xéewal. yow yàlla yàlla nag ma xéewal. shahada. shahada. fii ci Madinatu Rasul. fii ci Madinatu Rasul. doomam na ko xanaa. doomam na ko xanaa xamoo li ngay wax. fii ay jullit rek a fi nekk. fii ay jullit rek a fi nekk. xeefar nekku fi. xeefar nekku fi. xare nekku fi. xare nekku fi. noo fi jëlee shahid. noo fi jëlee shahid. mu ne yàlla laa koy ñaan te yàlla mën na lu may. mu ne yàlla yàlla mën na loolu. te loolu la ko yàlla may. te loolu la ko yàlla may nag. ba muy ba muy dee. ba muy dee. benn benn benn xéefar. benn xéefar. bu tudd Abu Lu'lu'ata. bu tudd Abu Lu'lu'ata. Lu'lu'ata. Lu'lu'ata. moo ko doxee gannaaw jëm ko paaka. moo ko doxee gannaaw jëm ko paaka. ci jullee ci jullee kaayam mu dee foofa mu dee foofa mu julle mu mu mu ci jullee kaayam la daanu ci jullee kaayam la daanu deewut ci saasi deewut ci saasi yóbbu nañ ko këram yóbbu nañ ko këram ba ci kaw lalam la deexee ba ci kaw lalam la deexee loolu nag yàlla mën na koo may ku nekk loolu yàlla mën na koo may ku nekk yàlla mën na ko teralee jaamam bu nekk yàlla mën na koo teralee jaamam bu nekk bu kenn ragal dee. bu kenn ragal dee. ndax dana ñëw. ndax dana ñëw. am na deyin boo xam ne nag. am na deyin boo xam ne nag. yàllaa la ko teraleer. yàlla la ko teraleer. ku la tooñ rey la. ku la tooñ rey la. kooku yàllaa la teral yow. kooku yàllaa yow. yóbbu la aljanna. yóbbu la aljanna. moom moomu la rey nag. moom moomu la rey nag. yàlla wax na ko ne. yàlla wax na ko ne. ku rey jullit. ku rey jullit. fekkee yaa ko tey. fekkee yaa ko tey. sa pay safara rek la. sa safara rek la. kon moom yóbbu na la kon moom yóbbu na la aljanna. yóbbu boppam safara. yóbbu boppam safara. yal nañ ci yàlla musal nañ ci yàlla musal. yal nañu yàlla sàmmal suñu réew. yal nañu yàlla sàmmal suñu réew yaara bi. yal nañu yàlla sàmmal suñu doom. yal nañu yàlla sàmmal suñu doom. yal nañu yàlla sàmmal suñuy sët. yal nañu yàlla sàmmal suñu sët ak suñu gétt lépp. Euh, nawet a ngi ñëw ñu ngi koy yaakaar. nawet a ngi ñëw ñu ngi koy yaakaar. na ko yàlla barkeel. yal na ko yàlla barkeel. na ñu yàlla may li ñu sàkku yëpp ci nawet. yal na ñu yàlla may li ñuy sàkku lépp ci nawet. ñun ñëpp ñu jéem a góorgóorlu nag. ñun ñëpp sëriñ bi nañu jéem a góorgóorlu nag. jéem a wane ne mën nañ dara. jéem wone wane ne mën nañ dara. buñ bëggee luñ dundee mën nañ koo am fii ci suñ suuf si. luñ dundee mën nañ koo am fii ci suñ suuf si. xaalis bu ñu def ci suñu poos mën nañ koo amee fii ci suñ suuf si xaalis bu ñu def ci suñ poos mën nañ koo amee fii ci suñ suuf si xaalis bu ñu tabaxee mën nañ koo amee fii ci suñ suuf si xaalis bu ñu tabaxee mën nañ koo amee fii ci suñ suuf si waaye nag dafa laaj nga liggéeyee ko nag waaye nag na fexe nga liggéeyee ko nag boo ko liggéeyee boo ko liggéeyee yàlla dina la dimbale yàlla dina la dimbale waaye boo liggéeyee nag bëgg a am waaye boo liggéey dara bëgg a am dara ay jafe-jafe rek lay indi. ay jafe-jafe rek lay indi. ay coono rek lay indi. ay coono rek lay indi. parce que ngay tuumaal ku nekk ne moo la ko teg. bu ko defee ngay tuumaal ku nekk ne moo la ko teg. waaye boo seetloo sa bopp xam ne yaa ko teg sa bopp. waaye boo seetloo sa bopp xam ne yaa ko teg sa bopp. yal na yàlla teggi xay wi. yal na yàlla teggi xay wi yaara bi. yal na yàlla taxawal deret ji tuuru. yal na yàlla taxawal deret ji tuuru. yal na yàlla sange réew mi. yal na yàlla sange réew mi. ci mbaaxam ci mbaaxam ci kattanam ci ci kaweem ci kaweem Sénégal Sénégal yëgante leen yëgante leen Sénégal yéen waa Sénégal bëggante leen bëggante leen yéen waa Sénégal yéen waa Sénégal xoolal xoolal ci tabax jëm ci tabax ak yëkkati ak yëkkati wattandiku yoon woo xam ne. wattandiku yoon woo xam ne. ak noonoo rek lay indi ci réew mi. ak noonoo rek lay indi ci réew mi. yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi. yal na yàlla nangu suñuy julli ak suñuy jaamu. yal nañ yàlla nangu suñuy julli ak suñuy jaamu yaa rabbi. yal nañ yàlla nangu suñuy ñaan. yal nañu yàlla nangu suñuy ñaan yaa rabbi. yal nañu yàlla taxawu. yal nañu yàlla taxawu. bijaaye rasulillah. bijaaye rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. allahumma salli ala sayyidina wa sallam. jërëjëf.